réew mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm yaakaar naa ne kii ma jàkkaar loolu dootuñ ko présenté benn doomu réew mi Serigne Abdoulaye Diouf jàmbaari Serigne Saliou ji ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm di ko ziar bu baax a baax a baax si nga Serigne yaakaar naa ne diñ fay ñëwoon ci ay weer yi yu génn nga taxawoon nañu si nga Abdoulaye kii nekk président Sénégal xale bu ndaw lay doon vidéo yaa ngi nii ci ñun Serigne Abdoulaye loolu fan nga ko tegoon loo gisoon la wala luñ la déewoon la wala lan nga tey jii nga xam ne fan nga tegoon wax jooju sëñ Abdallah ba wax ñu loolu aouzu billahi min asheytaani irajim wa inni auzuha bika wa suriyataha min asheytaani irajim rabbi an yaxjuruni bismillahi rahmaani rahim waaw xam nga alaaj faram ñu bari dañoo dañoo bëgg a weddi xam-xam wala dañoo bëgg naxasal xam-xam uh-huh. te suñu borom day maye xam-xam ci ndaw ci surtout jamono ji sax ndaw ñi ñoo gën a am xam-xam sax mag ñi nag ma wax la ko nag mhm. mag ñu bari li coono bii xam-xam di laaj mag ñi àttanatuñ ko fi ñu si bari taayal nañ ko def mhm. wala xam-xam bu nekkoon ci mag ñi bokk ñu si bari làqu nañu mhm. ndaw ñi ñoo ko desee nañ nangu jamono ji jamonoñ ndaw la lii may wax nii su ma ko tegutoon fi wér am njaboot am ay doom am ay nawle ñu ma bëgg surtout ñu ma bëgg bëgg ma loolu ci seen xol ñooñu sëñ bi du rus naa mën a euh, toog di wax loolu noonu mhm. eh, li ma gisoon boo tax ma wax ko ci dëkk bi laa dëkk mu ñor ma ma xool mhm. ba gis xale bu ñuy dugal pale mhm. mu sol dàll yu weex bi ma ko gisee it noonu laa ko waxee it ne kii mooy doon président ndax xamoon naa tur yi ndax ba ma xëyee ca suba si gis ñu koy saboté ci daal laa ne moom mii mooy doon président te fu leer laa koy teg ñi ma jegeek ñëpp yow mi sax wax naa la ko ba nga teg dugal ko ci internet bi mu ñaata yoon la ñuy def émission suñu borom may ñu ci ndam. Oh, du jeex nañ jël lu baax loolu teg ko man lu ma wax rek am na fu ma ko teg. mais tey jii ma ñëw di waxtaan ak yow ci wàllu ñuy ci keroog ci man laa la élection yaa ngi ñëw bu élection des trois mois jàpp deux mois Sëñ Abdallah élection yaa ngi ñëw kan nga yaakaar ne mooy nekk njiitum réew Sénégal nga ne lu mësta am Sénégal dina am gone gu ndaw gu tuuti ci ay at mooy nekk njiitum réew. loolu Cheikh Abdallah bi ñu ko waxee man mii toog yow sax dama jaaxle woon naa ci. man naa si Cheikh Abdallah lan la wax te sama xel mës sa dem ci jomaay boobu. Mhm. waaw wallaay parce que noonu lañ ko gisee woon te niñ ko gisee bëgg nañ ëllëg suñu der set ca. Mhm. ñu wax ko ba ñuy fomm élection yi da maa laajoon. Mhm. nan nga ma laajoon. te tamit laajoon naa la ci wàllu élection yi nga ne élection yi dañ koy pousse. mag ma laajee man la élection yi du am ci waxtu ñu ko foogee dañuy pousse élection yi léegi nag moo tax man la. nga ne ma nan nga gisee woon ñu pousse élection yi man la dama gis Macky Sall mi Amadou Ba ñu tegal ko 16 ngir mu jiite te Amadou Ba jiite na. Mhm. def nañ ko premier ministre ba pare jiital ko campagne mhm. ma ne ñii kat seen nguur Macky Sall dafa nekk assemblée di liggéeyal Amadou Ba. Mhm. si laa gisee loolu kat ma ne kon seen nguur jeexagul. li si xaar boo ko si xaar li nga koy firee. ak ni nga koy waxee nit ñi. du bokk léegi ci laa ne nag kon ñi seen nguur jeexagul. te exact élection yi waxtu wa seen nguur waroon jeexee jeexee woo ko dafa continuer cee sëriñ ma laajee kon nguur Macky Sall dafa des man leen waa dafa des ba tey maanaam ca jamono yi may doon gisee ñu pousse élection yooyu ba tey nguur Macky Sall dafa des te pousse nañ ko loolu yëpp am na kon sëñ Abdallah mais mais tey jii Diomaye mi nga waxoon ne tey jii xale bu ndaw lay doon muy jiite réew mi suñu borom def ko tey jii nekk na ci njiitu réew kon jotul ma woon sénégalais vidéo bi ñu koy waxee kon gars yi xool leen vidéo bi Sëñ Abdallah waxee woon ci digganteem ak bi mu interview bu mujj bi ma koy mujjee laaj avant ñu naan élection yi dëgg mois xool leen ko ñu ñëwaat. ak def nangam nangam Sëñ Abdallah la réew mi jëm ak lan mooy saraxu réew mi duñu toll ak boo amoon looy waxaat ci réew mi pour nit ñëpp bàyyi ko xel la ñuy wax. ma ciy waxaat pour nit ñi bàyyi bokk na ci ñu ñaan élection am su dee ñaan nañu ba élection am mooy gën ci ñun ñu dëkk ci réew mi bu dee ñaanuñu élection am dina am ay takk der. ñenn ci takk der yi ñu yor gouvernement bi ñenn ñooñu bu ñu ko yoree yeneen ay takk der danañ ko xëccoog ñoom yeneen takk der yooyu bu ñu ko jotee mën nañoo gëj a am président réew mi mën naa nekk ci réew moo xam ne réew mu gëj a am président nekk ndax mbir yi jeexagul su dee nag ñaan nañu ndax ñun ñu ngi ñaan ñun bàyyiwuñu ñu ngi ñaan de ñu ngi ñaan su dee nag ñaan nañu yàlla dimbali ñu ba ñu mën a am élection yu jàppandi alhamdulilahi rabbil alamin boobaa réew mi mën naa nekk ci jàmm ndax it am na ku ñaar ñu gis ñu doon xëccoo ci wàllu baatin waaw kenn ki waxoon nañ ko waaye gannaaw dañ ñoo ñu waxtu keneen ki nag boo moytuwul dina jël nguur gi ci jël boo xam ne nii kenn du ci mën dara te xale bu ndaw lay nekk ki koy jël. Hmm? waaw du nekk mag waaw du du nekk mag. Hmm. yàlla ñu defal jàmm ci réew mi réew mi am jàmm. bu ñu sax boo xam ci ndaw ñi. ceeb la juróom-ñaari sondeel juróom. sëñ Abdallah yaakaar naa ne Diomaye nekk na président wu réew mi Sénégalais yëpp teg nañ ci seen bët. lu bari li ñuy waxoon gis nañ ko waaye tey jii dafa am ñu àndal ko mel ni Ousmane Sonko ak leen njëriñ moo war a am ci réew mi ak lan nga gisaat loo xam ne nii lu ñu war a bàyyi xel ci réew mi si Abdoulaye Diouf. waaw ah, bari na waaw ah, jot naa nag sama mbokk yu bari ñu may wax naan ma bul wax waaye man li may wax euh, ragaluma ko parce que li may wax xam-xam la. Mm-hmm. maa man maa jàngi woon. Mm-hmm. man maa sàkk ji woon xam man maa xam di wax. Mm-hmm. li may wax kay xanaa su ma ci doon wut xaalis sax ñu ne waaw mais man joxe ma sama numéro bëgguma ko ma ci woo. Mm-hmm. li may wax dama koy wax rek te ci xam-xam laa koy waxee. Mm-hmm. jomaay diggante moom ak Sonko defar diggante moom ak Sonko xelu nguur bañ koo jàpp Sonko tamit euh, taxawee comme taxawaayu doomu soxna. Mm-hmm. comme yàlla def na mu jiital ko jiital bi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg bu mu ko fa xasal na ko bàyyi mu dem. ndax it ñu man xeex bokk naa ci ñi leen doon xeexal boo duggee sama page di nga gis ni bokk naa ci doon xeexal mm-hmm. waaye nag damaa gis loo xamante ni seen début nguur day am ay xeex yu fi am ay manifestation ak yu bëri bëri dana fi am ay tentatives yu bëri dana fi am pour fexee leen ñoom mais lan moo waral loolu waaw di seen début nguur moom moo dul moo dul neex moo dul jag mais nañ leen bàyyi ñu liggéey dina baax waaw commencement bi du jag dara du jag mais nañ leen bàyyi ay coow ak xeex ak yu bari mën naa am waaye nañ leen bàyyi ñu liggéey rek mais tey jii yaakaar naa ne ci ñi ñu war a fan ñi ñu war a jiital pour ñu liggéey loolu tamit ndax amoo ci benn xalaat boo xam ne tey jii war naa mën a am waaw xalaat bi mu am daal mooy ñu bañ a déglu kenn bañ a tontonte mhm. te te liggéey gëm li ñu gëm ñi nekk bitim réew léegi nga gisaat leen diaspora bi danañ wàcc fii dana fees del te ñu bari danañ liggéey gis nga nguur gi ñu ngi ciy fal ñu si bëri danañ jógee danañ bàyyeekoo diaspora bi hmm. diaspora bi ñu si bëri danañ dugg ci nguur gi di liggéey waaye nag ñii xëccoo place xëccoo place bi ñu nar a xëccoo nii duñ ci fal kenn waaw hmm. xëccoo place bi dina bëri waaye kenn duñ ci fal kenn ñooñu nag ñu doon fal dina bëri ñu doon séntu dara ci nguur gi taxawaat yàqat deru Ousmane Sonko ak Jomaay te Jomaay na veye ci waajuram bu jigéen hmm. na dem mu veillé ci moom bu baax a baax a baax a baax a baax wala na ko teg ci wetam na ko teg fu fu fu fu sécurité mm-hmm. waaw ndax gàllaajam la te it pexe yu bari dañ koy bëgg a jaar ci kooku na veillé ci ga waajuram bu baax a baax a baax na gën a nekk xaritam na gën a nekk soppeem mm-hmm. di nga gis ñu bari ñu ko doon tagg tey danañ ko xas ñoo musul yaakaar sax dinañ xas jomaay di nga gis ñu bëri ñu kilifa yu bëri yuñ jàpp ñu bare bare bare ñu japp leen ay kilifa yu bari yu ñuy japp ay kilifa yu yu bare bare bare yo xamne ñu ngi dañ nek ci fitna ci ci nguuru ci nguur gi ni ma wax yow ñu bare bare di nga gis ku ñu jël tek ko poste du fa def ay weer ñu dàq ko waaw ku ñu jox poste matul juroom juroom weer ñu dàq dina ci bari lool sax. sëñ Abdoulaye dama yunyi a yunyi yu bëri yu ñuy téye. du benn du ñaar du ñett du ñeent da nga gis kaso kaso bu ñuy defaraat kaso bu ñuy defaraat da nga gis ay tabax yu bari yo xamne dañ koy may ay nit ay tax yu bari ah, yu bees yu ñu jël di jox ay nit. mais kilifa yooyu ñuy jàpp Serigne dara pour lan la. kilifa yoy ak dañu nekkon ci nguur yo doon def lu leen neex ya. di nga gis ko xamanteni kilifa guy daw kilifa go xam ne mën naa wax ni day bokk ci. xeetu waxkat xeetu waxkat xam naa waaye du ma dañ maa ay tur waaw gu ñuy sonal lool sax boo xam ne nii dina sonn lool ci alalam ba mu dana mujj daw wala mu bëgg a daw bari ñu jàpp ko waaw ah, waaw bi day tàng de coow day am de waaw day tàng jër sax commencement bi moom ñii ma gis nii ak yi yi may gis nii waaw seen début moom dana xaw a métti torop secret yi feeñ ñuy génn di wax nit ñi nit doon ray secret yu bari dana feeñ waaw secret guy tas complot guy jóge ci nguur di jëm ci nguur waaw complot bu doy waar nguur gu fi gu fi nekkoon ay ñooñam di complot dana doy waar trop dana yan sarax ngay digal ndawi réew mi ak comme na nga ko daan defee pour li nga xam ne tey jii jàmm lay doon ndax tey jii sànq dégg naa ak say wax nga ne ay doomi Sénégal yu nekk bitim réew yu bari dinañ ñibbisi ci seen réew. ñi ñu bëree bari danañ ñibbisi même xale yi sax ñi nga xam ne yàgguñu fa sax di nga gis euh, avion bu bari yëpp xale yi di ñëwaat te ñoo ñëpp bu ñëwee dañuy liggéey. ñun ñëpp ñu bëree bëree bëree bëree ba ci ndaw réew mi danañ dañ ñibbisiwaat nañu def ay sarax ñu def mburu mburu baax na mhm. waa beneen bi tam comme seen nguur ndox la commencé dafa taw mhm. ñuy faral di saraxe ndox ndox mu rax nag ndox boo xam ne soow la wala boisson wala mu bañ a nekk ndoxu kase baax na trop waaw li ma gis ci kanam seen nguur dafay baax dafay neex lool sax mhm. waaw ci alal moom macha allah dana feeñ daal lu bëri dana wàññeeku coono yu bëree bare bari dana dana dañ incha allah jërëjëf sëñ mhm. am na solo yaakaar naa ne sëñ Abdallah juuf foofu nga génn fu doy waar la sëñ Abdallah loolu lu am solo la waaye sëñ Abdallah lan ngay wax mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo say soppee ak lan nga leen wax ci réew mi. waaw ah, di jàmm te di ko sàkk suñu am na yu bi jot am ba ñenn ñi dagg ay vidéo yoo xam ne nii na ma ko waxee ak nañ ko xalaatee na mu demee bokkul. Mhm. amul solo. Mhm. ñi may bëgg nag ndeysaan di ma nekk ay soppe. ku mel sëñ Modou. ak ñoom Bégaay mhm. eh, ñu di ma woo samay soxna mhm. ah, bi bati ñoom ak ñoom eh, kii Mout Thiam mhm. ak eh, soxnaam ñenn ñi di ma woo ñoom ñëpp bari na su ma limee damay jum nañ dalal seen xel man taalibi Sëriñ Saliou bii suñu Abdoulaye Diouf ndamuma bàkkuwuma waaye incha allah rabbi kenn du ma baal yaakaar naa ne ah, sëñ Abdoulaye loolu am na solo mm. jàmbari Sëriñ Saliou ji lépp loo wax rek suñu borom mu ngi la ciy dimbale sénégalais yaa ngi koy gis waaye sëñ Abdallah ñu ñëw nag ci coow li sëñ Abdallah Modou Lo mooy le roi des arènes te jël na titre roi de arènes tegal ko séeréer si dugaloon na ko Pikine vidéo yaa ngi fi nga leen Ama Baldé gisoo fu mu nekkee roi des arènes Boy Niang gisoo fu mu nekkee roi des arènes te loolu vidéo yooyu Sénégal yépp ko seetaan sëñ Abdallah mudlu tegal na Siteu le roi des arènes ndax Siteu mën naa nekk roi des arènes daan Modou ndax Modou di continuer nekk roi des arènes si gab dara man Fadam lu wax lu nekk rek am na ko teg te yow sama waay nga mhm. kan moo ma mën defal interview kenn mënu ko kenn mënu maa génn télé pour yow mhm. mooy yow sama waay nga sama nit dëgg nga mhm. ku baax nga si man Modou Lo ak Siteu mii. Hmm. li ma gis ci Modou gisoon ko bu njëkk. Hmm. moom laa gis ba tey jii may wax ak yow ci li mu toog ñag na ko bu baax te gisuma lu ko mën a ñàggati fu mu toll nii. dégguma li nga wax si Abdoulaye. Modou li mu toog daf ci toog bu baax lenn rek laa laa gis nag blessure blessure rek laa gis ci moom te xam te du wax parce que waaw am na yoo xam ne dootoo ko wax daal waaye blessure dong laa gis ci moom. Hmm? kase. mais à part lool ci limu nekk lu dëgër la te Siteu xañ na bëgguma ñenn ñi mere ma waaye na na defaraat ngembam bu baax hmm? waaw na defaraat ngembam entraînement moom mbër da koy def jarul nga koy conseil mbër waaye na defaraat lan moo tax nga ne Siteu mu defaraat ngembam bi ngemb gi am na yoo xam ne du takk daal am na yoo xam ne du du looy takk rek hmm. du looy takk rek ngemb du looy takk rek looy takk takk takk takk yooyu ngay jël teg fële nga defaraat sa ngemb ngemb am na nu ñu koy defaree sa ay takk takk takk takk takk ay xaaw ay moom dana xam li may wax lu mu doon ñi ko jegee danañ xam li may doon. li may wax mu doon mais sëñ Abdallah Modou Lo le roi des arènes sëñ Abdallah nag dafa jot ñu xam Modou Lo lan nag sëñ Abdallah Modou Lo am na loo moo xoon ci diggante ak booy Niang am loo moo xoon ci digganteem ak Ama Baldé Sénégal yëpp teg ci nga leen ni ñaa ngi naan ñaan lu wut waaye ñag na boppam ba kenn mënu koo ñàggati. yàllaay sëñ Abdallah la mooy secret Modou ah man damaa jàpp ne moom daal secret Modou Lo dafa naqari listixaar sax pour listixaar koo gis ko sax dafa dafa dafa naqari te daa jafe lool sax ak naqari listixaar man su ma bëggee xam ci moom dara <laughs> noonu lay sonnee wallaay xam naa ne daal mu nekk ay mbiram yoo xam ne ni Bachira la Bachira bu wéer a wéer a bu mu yor ah, voilà ah, ismila yaasim bu ànd ak xaqiqa bu leer a leer a mu téye ko toog ci. ba noppi tamit ñi ànd ak moom dañ koo seetaanul benn yoon dañuy ñi ànd ak moom dañoo xam ñaan mu jaral leen léppam. déggook askanam te dangay xool ñi muy bëreel ñu si bëri di leen daan duñ déggook seen ay askan te yàlla nag dafay dafay jox ndam ci ñi déggoo loolu bokk na ci secret moom. Mhm. moo tax kuy kuy kuy kuy moom bul coow bul bari fooy dugg bul bëri yenn mbir yi daal. Mhm. yow daal da ngay jàpp ne Modou Lo ñàkkul roi des arènes bi cinq dollars. déedéet en tout cas daal kuy bëri moom bul ko liggéey bul dem di ko sëf bul dem di ko def takk te xam ne du ko jàpp boo ko defee ci kaw lay dellu si. loolu am na solo dinañ ci waxtaanaat bu combat yu gën a jege tey waaye sëñ Abdallah Balla Gaye numéro 2 daa jël Tafatine foofu nag la ñuy tijjee waxtaan wi Tafatine daan ñëpp mbëri daan Balla Gaye te Balla Gaye ko daanoon. te ñoom ñaar ñëpp ñu nga bitim réew kii nga Côte d'Ivoire kii nga France di entraîné di préparé wu. Sëñ Abdou seen diggante loo ci gis sëñ Sëñ Abdou Lahat. ma ci gis ci ah, ngemb la de ngemb xëccoo ngemb xëccoo ngemb xëccoo gàllaaj daal xëccoo gàllaaj xëccoo ndam moo ci am waaye Balla Gaye da koo téye fu mu nii. Hmm. Hmm, Balla da koo téye. ñu ngi koy xëccoo nag mais Balla Gaye dañu dañul ci loxo bi de ndam li dañul ci loxo bi de ndam lam yoroon ci tafaatin ba tey mu ngi ci loxo bi. ak tafaatin ñi mu boole daan daan ñett ñi daan Balla Gaye numéro 2. ndam daan Boy Niang daan Bombardier daan Eumeu Sène. xeex komba bi xeex xeex xeex xeex moo ci am beneen bi xëccoo gàllaaj xëccoo ndam li kase moo ci am di nga gis ni làmb ji dina yàgg lool ci préparation mystique. di nga ci gis ndox mu baree baree bare bare di nga ci gis glace gu baree baree bare bare tojol yu bari di nga ko ci gis ci làmb ci waaye ndam li fi mu nekk nii ah jugee ko fa de xañ na nag ci kanam yàlla may leen dam waaye ndam li daal dafa balag Gaye da téye fu mu ne nii waxuma sax da koo téye ci baatin waaye dakoo suñ suñu doom koo jox fi mu ne nii incha allah. waaw waaw loolu moom lu ci des nag yàlla baax na am lu des nag yàlla baax na. incha allah dina baax ak tafaatin ni ko siri si di ngembee guddi yu ñu toll. ku am ngemb la di tafaatin gën ëpp ko ngemb tafaatin. mais lan mooy différence ngemb ak xëccoo mën ngaa am xaalis mën ngaa am xaalis nga bëgg oto bi ma bëgg ko ma njëkk la koo jënd njëkk la cee teg loxo. waaw tafaatin am na ngemb bu baax kenn ëpp ko ngemb. Mm. waaye lam soxla dañ ko cee dañ ko cee njëkk. te moom la bëgg fi mu toll nii nag. waaw léegi nag loolu nag na ko ne ay ñaanam rek xaj na moom mu gis bunt bu gisee bunt bi rek jeex na waaye ñuy ñaan gàllaaj muy doole kenn ëpp ko ci bu dee doole moo ko ëpp Balla Gaye bu dee taxawaay moo ko ëpp bu dee lu baree bari forme ci làmb sax moo ko ëpp waaye ndam lii ma lay wax nii bu ñu ba ci biir géew gi mën naa réer tafaatin mën naa réer mën naa réer jaxasoo ba kenn dootu ko xàmmee waaw ngemb moom am na ko moom loolu kenn waxatu ko waaye ndam li moom dañ ko koo njëkkatee ah yàlla mën naa dogal nag mu ñëw seet si ku mel ni que sëñ Abdallah wala Balla Gaye ñëw seet si ku mel ni sëñ Abdallah ñu ñu toxal làmb ji daal daal koy aj def ko ci yeneen weer weer yoo xam ne dana baax ci moom su boobaa nag après ci la ñuy mën a xamee ndax <laughs> mu ngi noonu. lan ngay tàggatoo di ko ñu la dalal seen xel ñu dalal seen xel te li ñuy nit ñi nga xam te ni. dañoo nekk ay ñaankat di de jëflante ak seen moroomu ñaankat yi jëf yi ñaaw yi nan ko bàyyi amul solo man xale la li ma am lépp li du du rek ñaan moo ma may di fay ay nit pour ñu yóbbu nit ki vaar amul solo du ngeen ma mësa vaar incha allah dem leen ngeen toog ngeen jang xam-xam ngeen gëstuwaat man dama jàng ay diplôme laa tegale ay téere laa tegale dama jàng ba xam li may xam ñëw toog soxlo soxlawuma kenn fay ma bugguma kenn benn client bugguma kenn ñëw man ku ma xamul xamuma ñi ma am yàlla may ma leen ci client yi nii doy na soxla joxewuma sama numéro soxlawuma kenn woo ma soxlawuma ci lenn li ma am yàlla may ma ko ni du télé yeeg euh, rajo yeeg yooyu ñoo ma ko mayee ñoo ma koy xañ dalal leen seen xel bu baax a baax a baax du ngeen ma gis ci vaar yéen ñi samay mbokk yi nga xam ne yéen a ngi naqarlu yenn ñi ñuy jën yi teg ñoom dañoo dégluwul wax ja wala dañoo xamul fu mu fu mu commencé salaamaaleykum wa rahmatullah